jàngor bi nu mu ko amee dañoo war a anticiper anticiper nag mooy fexe population yi acteurs locaux yi état bi société civile ñuy toog waxtaanee ay instruments. ay instruments yoo xam ne dañuy permettre ñu mettre à la disposition des élus et des populations donc ay programmes ou ay projets yoo xam ne. Euh, ku nekk da ciy gis boppam ku nekk da ciy gis jëriñam et di wax ne li am ngor regretté nañ ko mais danañ fexe ba yu mel noonu bañ a am et que très bientôt ñun sax dinañ woote benn atelier ci lu dul yàgg dinañ woote benn atelier boo xam ne dinañ dajale kuréel yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ci euh, ñu ñu ngi seq collectivité territoriale yi pour ñu waxtaanee jum nga xam ne war nañ mën ko mën teg pour anticiper donc et prévenir conflit yi nga xam ne moom moo mën a jóg ci gox goxaan